fukki camion lépp yab gerte service régional di commerce teg leen loxo fii ci diwaanu Mbàkke ñii daal dañu jàpp ne lim naroon a defee suwul jël gerte jaay ko ñeneen ñu dul ñi nga xam ne ñooy waa Sonacos wala sax nag nu jaay ko njëg bu nga xam ne nguur gi ci boppam àndu ci ñoom daal ñu ngi wax ne ay tuuma yu nu gàll seen kaw waaye metti na leen lool. li ma indi fii ñun dañoo demoon àll ba jënd gerte ñëw Touba biñ ñëwee ba biir Mbàkke ñu arrêté ñu indi gerte gi fii service de commerce bi lañ ko indi. nan ñu bëgg xam lan moo tax ñu jàpp ñu te mënuñu ko wax depuis démb ba léegi ci guddi man fi laa nekkoon ci guddi bi ma fiy jógee bi ma leen laajee dañ ne ma da ngay dem ba 9h nga ñëw 9 ñëw nañ fi ba 11 gisuñu leen léegi nag dañoo bëgg xam lan moo tax ñu téye gerte gi ndax parce que ñun dañuy liggéey di daan suñu doole dem ca àll ba di indi gerte ñu naan ñu du ngeen ko jaayee léegi du ngeen ko du ngeen ko jëndee fee fii ngeen koy jëndee ñun loolu lañ comprendre ndax parce que bu fekkee ne sinuwaay yi ñuy wax tax ñuy wax gerte gi ñoom ñoo autorisé sinuwaay ñu dugg ci biir dëkk bi di jënd gerte defal lii contrat ñu dugg ci dëkk bi di jënd gerte kon nag ñun am nañ droit dem jënd gerte ñëw jaay ko seen waay ñoom bu bëggee aaye gerte gi seen waaye li ñuy njëkk a aayee bañ leen a dugal ci dëkk bi bañ jënd li ñuy jënd ñoom ba doyal doo ko autorisé seen waay ñu jënd ñu dugg si boobaa lañ bëgg ñoom danañ ko am waaye mënuñoo fexee fexee fexee fexee ba baykat yi jaay leen seen gerte gi ci deux cent dix te gis deux cent cinquante mënut a am dañuy seen bopp nañ ñu bay ñu liggéey ay boroom kër lañ di daan suñ doole di liggéey yor suñuy kër ngi dégg kon nag ñoom lañu war a def bàyyi ñu liggéey waaw bu fekkee ne lu ñuy aaye dañ ñu koy teel a wax ñu xam ko lu ñuy dogal ñun ñu dogal ko ñu xam ko waaye duñ sëf suñ gerte ga ci àll ba ñëw ñu arrêté ñu fii depuis ba léegi waxuñu dara lu leer teguñ ko fenn nañ ko tegut waaye sëñ bi gerte guñ béyee ci dëkk du foroot du dara want libre lañ wax ñoom vente libre sëñ bi lan moo lan moo ci nekk lu lu wala balut nañ ñu ko wax point de collecte yi amut amut amu niñ ko mën a gisee ñoom nañ jënd li baykat yi bëgg a jaayee buñ ko doon jënd ñoom danañ am ñu bëgg waaw point de collecte yi bu fekkoon ne ñoom dañoo bëgg ne maanaam dañuy jënd gerte dañuy dem ca baykat yi jënd 250 yi nga xamante ne moom lay waa di jënd yaa ngi dégg kon de collecte danañ am gerte waaye ñàkk gerte tax ñuy def li ñuy def lépp 210 la ñuy jënd te baykat du ñu jaay seen gerte gi ci loolu 250 ak 275 la ñuy jënd gerte ñun ci àll bi maanaam ñu bay ñu liggéey wala bu fekkee ne maanaam lu yu ñuy teg la ñu wax ñu ko ñu xam ko ñu jaar ca luwaa yooyu mu jeex tàkk loolu lañ bëgg waaye ñun gerte ci la ñuy yëngu di te ñaar fukki at ci gerte la ñuy yëngu duñ ko bàyyi mukk ci àdduna mooy suñu liggéey teranga ju ñu am ci lañ ko amee campagne bi moom maanaam fi mu toll nii maanaam situation bi ñu toll nii bu continuer nii lu yàqu la lu yàqu la ndax parce que maanaam war a liggéey liggéeyoo ñu tëye say oto fii munoo dem munoo dikk loolu xam nga ne na waaw na lool Touba man man na le manam maanaam Touba gépp daan genn wàll gi ñu liggey waaw Touba mo mo ci rawat Touba mo ci rawat Touba Touba gi manam manam fo dem ci bir Touba danaka man na le koñ bo dem danaka rek amna usine bo xamanteni la fay liggey man na 50 personnes wala 60 personnes difa dan seen doole di xey di yobbu seen depart seen kër waaw ñun mom wa Touba li gouvernement bi wara def ñun japp lañu waye amu dara lo xam war nañu ko galankor ndax camion bo ci gis rek presque man na 7 millions 8 millions waaw ah. parce que mën na douze douze camions douze camions. béykat laa damaa bay sama gerte indi ko sama sama biir kër laa saarse sama oto fii ma ñëw fii Mbàkke ñu arrêté téye ñu suñ téye suñ téye permis bi ak carte grise gi maanaam liñ ñu téye nag waxuñu dara lu leer loo xam ne moo tax ñu téye ñu fi comme ca ca sa waru damaa yaakaar ne Sénégal fii mu toll waruñu sañu ñu ñoo gerte nee ñu far force nii ngeen ñu koy jaay wala fii ngeen koy jaay vente libre comme ni ko mbokk mi waxee am na dañoo war a jaay fu ñu neex kenn ku ne boo saarse sa gerte fa nga fa nga jëm xam nga ko man gerte gi sax dama koy xolliji sama gerte maa ko moom sama gerte sëriñ a ngi ci ak sama gerte mag sama gerte rak lépp ma saarse ko indi ko fii pour di ko xolli si waaw ñu téye ko loolu loolu loolu moo ñu Amadou Touba Niane moom mi nga xam ne moo jiite service régional du commerce bu Njaareem di wax ne yenn ci camionneurs yi daal dañu jàll sart yi nga xam ne nguuru Sénégal teg na ko te it faaw rek nu xool saytu leen bu ko jaree nu teg leen i daan. at état nag comme nag moom mooy dox diggante kiy jënd ak kiy jaay day fexe ba lu ñuy jëndante rek mu doon lu set noonu lu koy defee ji wax ni ah kon nag bu campagne bi dee waaj a jot na ñëpp xool seen bascule yi ndax baax na ni ñu koy xoolee ci boutique yi balance yi xool. ñu poinçonné ko service du commerce yi xool ndax baax na bu baaxut ñu réglé ko ba mu baax kon it état moo ñëw mu ne ah li ngeen di jënd nii la war a mel ngeen jëndante ko seen biir kon boo àndee sa gerte nga nangu ñu taaraar ko loolu nag bu ñu kenn wax ni baykat bi nanguwut ñu taaraar am baykat bi du ñu ko may loolo ndax état tam mooy assuri loyauté des transactions état li mu ko may mooy na jaayee prix bu ko neex waaye na tañ gerte gi nañ ko taaraar Euh, lu jëm ci euh, lettre de voiture yi mooy document bi nga xam ne dañ koy yor pour ñi nga xam ne circuit officiel lañ xam nga boo seetloo gerte dafa nekk ñaari circuit circuit boo xam ne dafa officiel mooy ñi nga xam ne ñaare état def leen di subventionné ci usines yi ren nag yaakaaruma ne subvention am na wante ñoo ñoo amoon baaxoo daan am loola ñooñee euh, dañ ni am lettre de voiture boo xam ne affaire bi dafa am fu muy jógee am fu muy teeri cee kon ñooñu lettre de voiture bu dafa am nu muy mel mooy joxe information yëpp kon ñooñu il faut ñu am lettre de voiture li ñu gis nag ci camion yi am nañ ci ñetti cas yoo xam ne dañuy utiliser ay lépp lu nekk ci lettre de voiture boo xam ne du normal la te ñoom doonu ñoo xamante ne ci circuit officiel lañ ne loolu am na ci am na ci kenn cas bu kenn benn cas boo xam ne it Madame, l'aide de voiture bi mu utilisé ab usine de lettre de voiture moy li nga xamni gi nga permettre point de collecte nga usine de voiture. donc yow bu fekkente ne nga yow Sonacos nga jëm wala CAIT nga jëm ñu la jëm fenen fudul fofa wala nga bind ko ne CAIT nga jëm te CAIT commencé gut ça que loolu nak fraude lay doon lo xamante ne yaangi togn usine bi te togn nak yaakaar naa danga mën naa ñàkk itam ci biir mbirum ka yoy ñoy ka yi nga xamni 15 camions yi nga xamni hier appréhendé nañ len bon li ci ëpp ci ñoom bàyyi nañ len après des transactions parce que ñi nga xamni ne affaire ay reçu la criblage de graines avertissement lañ leen jox daanaka ay 50 000 lañ fay dem seen yoon ñeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci kaaw fraude nag utiliser kiiwu jàmbur lettre de voiture jàmbur ñooñu ñuy xool seen i cas xool fan la ñuy mujjee ak ñoom. waaye ñoom seen sanction mooy gën a lourd mooy gën a mooy gën a diis que ñeneen ñi nga xamante ne ñoom xaj na suñ leen a joxee avertissement yi bu ñu kiiwaat daañu góorgóorlu kon ñun aspect yooyu la ñu xool gàllankooruñu kenn na ñëpp jënd li ñu bëgg a jënd waaye nañ ko jënd ci jëndin wi nga xamante ne moom mooy cadre campagne bi ñeel gerte gi wéy di tagga témbe ci réewum Sénégal waa Sonacos ñoom ñoom it jaaxle lool ndax ndaxte gisuñu gerte déggunu ko te it ñenn ci ñi nga xam ne ay baykat lañu ñoom ñu joxoon leen ay jiw ngir xaar ci ñoom ñu indi gerte gi jaay leen ko mel na ni kon ñoom ñu ngi wuri koñ dem ci ñeneen ñi nga xam ne ñoo gën a mën a jënd seen gerte ci ay njëg yu yaatu ñu jox leen ko rawati chinois yi